jomaay daw di ko topp waaye ci kaw pujum bi lay kii mel ni dafa am daggitu mbaxana bi lu ci jomaay téye waaye xale bi jël na yëf yi daw dugg ci mbooloo mi ku mu romb nag doo man dara doo mën a dox danga mel ni ku ñu téye daal loolu nag ay yëf la gis nga man maa ngi wax sénégalais yépp dafa jë sama ñaari gaay yi lépp lu leen bëgg laal man dinaa ko gis maa gis loolu man maa ko gis ñu am luñ jël ci moom di daw te mbaxana la ah déedéet non man du ma ko gis la ma ci war a def ba ma xëyee laa def la ma ci war a def sax dama bëgg a def alerte wax nit ñi na leen lu bari ay nitoon koy waaj te ñun yàlla am na tuuti lum ñu ciy te ñu ngi koy xam di ko fexeel. non pas fexeel la kat ay kii yeeg ay kii loolu it mën na nekk gént goo xam ne it du dara. mais la bëgg wax ne la. non mais sëñ bi nag yow doo ñu wax dara ci Sonko ñu koy nattable doo ñu wax dara itam ci réew mi ci wàllu gis ñu di ko nattable. moom waaye daal loolu daal loolu daal loolu daal saa borom ban na ma ko jomaay na ñëpp jóg taxaw ñu fas yéene mu yeggale. man dama ne woon projet bi bu dee benn bakkan la sama bakkan na dem.